maa ngi wax li nga xam ne moom mooy recours euh, motif yi donc dañuy àggale waxtaan bi rek mooy appartenance à une entité politique dissoute production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel euh, coalition irrégulière irrégulièrement euh, ak li nga xam ne mooy non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi donc document bi moom mooy li nga xam ne moom lañ moom lañ jëlee fi nga xam ne moom mooy au niveau si benn mandataire bi nga xam ne ginnaaw bañ leen convoqué fii nga xam ne moom au niveau du conseil constitutionnel pour ñu ñëw euh, wax si loolu loolu loolu loolu loolu moo nekk li nga xam ne moom lañ jàpp ne moom mooy euh, euh, mbiru mooy euh, mbiru recours yi nga xam ne jot nañ ko déposé si nga xam ne au niveau du conseil constitutionnel donc les motifs euh, yi nga xam ne moom mooy les motifs euh, recours yi moom moo nekk ni mel Bassirou Diomaye Faye ki nga xam ne moom mooy document bi nag mu ngi jugee directement fi nga xam ne moom mooy au niveau du conseil constitutionnel donc ginnaaw mandataire yi nga xam ne convoqué nañ leen ñu am sens nag daal di koy capturer si li nga xam ne moom mooy. recours pour euh, Bassirou Diomaye fay si nga xam ne moom lañ koy lañ koy toppee si euh, lu ñeel euh, pour wàllu candidature moom mi nga xam ne moom mooy Maître Amadou Sall daa doon def am Maître Amadou Sall di avocat Amadou Ba lu ñu mën a jàpp rek mooy que attendu par décision en du janvier le conseil constitutionnel a procédé à la publication des listes des candidats à présidentielle du février que figure sur cette liste de candidats euh, Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye Diakhar Faye que par les présentes les réclamations ci après sont portées contre sa candidature et pour les raisons qui suivent euh, mooy raison y may wax sànq rek moom mooy appartenance à une entité politique dissoute production de fausses pièces devant le conseil euh, constitutionnel coalition irrégulière constituée irrégulièrement constituée non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi Euh, di fàttali fi nga xam ne moom mooy si naat bi ba léegi mooy réclamation bi au niveau du conseil constitutionnel ñoom ñi ñuy fàttali nga xam ne mooy l' article 127 du code électoral moom muy wax ne le droit de réclamation contre la liste des candidats est ouvert à tout le les réclamations doivent euh, parvenir au conseil constitutionnel avant l'expiration des 48 heures qui suivent le jour de l'affichage de la liste des candidats donc mun nañ xaarandi si aljuma bi euh, ginnaaw ba ñu xaarandi samedi bi ñu daal ñuy jox la liste officielle des euh, candidats donc loolu yëpp euh, mun nañ xaarandi mu bokk euh, si li nga xam ne moom moo ñeel wàllu motif yi nga xam ne ñu ngi koy toppee ki nga xam ne moom mooy le candidat Bassirou Diomaye Faye si li nga xam ne moom mooy les motifs li nga ne moom moo ñeel motif di recours de Amadou Ba sur Diomaye fay donc motif yaa ngi noonu dañ koy bamtuwaat rek. Euh, laata loolu nag gis ngeen mandataire ñu ngi gën di wax euh, li si li nga xam ne moom mooy euh, yenn kan mandataire ñu bëgg laaj leen li nga xam ne mooy les motifs rawatina ki nga ne moo fi jógee léegi nekk représenté ki nga xam ne mooy la candidature Amadou Ba moom tamit mi nga xam ne mu jur baaraam tuuma li nga xam ne mooy laa double nationalité de Karim Meïssa Wade donc pour les motifs du recours de de Amadou Ba di premier ministre Amadou Ba sur la candidature de fay Faye dinañ si dinañ si gën a ñëwaat. ak li nga xam ne moom mooy euh, son mandataire donc mais lu ñu mën a jàpp rek mooy que not bi lu muy wax mooy appartenance à une entité politique dissoute production de fausses euh, pièces devant le conseil constitutionnel wala euh, une coalition irrégulièrement constituée non appartenance au parti ou la coalition qui l'a investi donc si noonu dinañ def suñu kéemtaay kàttan également daal di jéem a jot benn juriste Pa Moussa wala keneen ak nu mel mu daal ñu wax li nga xam ne moom la xalaat Euh, si li nga xam ne moom mooy euh, dossier bi nga xam ne mooy dossier candidature yi donc si wàllu réclamation tamit à part Bassirou Diomaye fay Cheikh Tidiane Dièye euh, moom tamit dinañ ñëw si li nga xam ne moom mooy ñeel wàllu sa sa candidature ak li nga xam ne moom lañ koy toppee si li nga xam ne mooy lu ni mel fàttali également. li nga xam mooy l' article L57 du code électoral moom la candidature est portée soit politique légalement constitué ñoom ñuy fàttali lu ñeel ba léegi si euh, recours bi euh, singali ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, soit par une coalition de partis politiques légalement constitués soit par une entité regroupant des personnes indépendantes maanaam également li nga xam ne moom mooy candidat Diomaye Faye donc mun nañu wax ne jamono ji Euh, dina bokk si li nga xam ne dañ ko xaarandi euh, le vendredi euh, ba xam recours bi fan lay mujj ak wànnante ak gëtam ci kanam tuuti rek di nañ leen ibbil ligne bi tamit ngeen daal di wax seen xalaat si li nga xam ne moom mooy réew mi donc ñoom ñi ngi wax ne également li nga xam ne moom mooy Pastef ginnaaw buñ ko dissoudre parce que Diomaye Faye ñu ñu ko investir daanaka bokkul ak ñoom dara di wax également que la candidature de monsieur Bassirou Diomaye fay Euh, par le truchement d'une coalition politique ñoom ñoo wax lu ñu mel ci bi est une participation au maintien et à la reconstitution indirecte du parti PASTEF dissous pour des motifs insurrectionnels en violation de l'article 5 de la loi 65-40 du 22 mai 1965 modifié par la loi 79-03 du 4 janvier 1979 ñoom si document bi ba léegi ñuy wax li nga xam ne moom mooy euh, par rapport ak candidature Bassirou Diomaye Faye di wax ne attendu que monsieur Bassirou Diomaye Faye Niakhar a été inculqué et placé sous mandat de dépôt le 18 avril pour acte de à compromettre à la sécurité publique wala lu ñeel wàllu outrage à la magistrature wala diffamation à l'encontre d'un corps euh, constitué donc euh, ñu daal di xoolaatal bu baax document bi nga xam ne moom moo ñel wàllu motif yi nga xam ne moom moo tax. Bassirou Diomaye fay euh, ki nga xam ne mooy candidat Amadou Ba daal di koy introduire euh, fii nga xam ne mooy au niveau du conseil constitutionnel euh, donc qu'il s'en qu'il s'ensuit que monsieur Bassirou Diomaye Faye Niakhar fay précédemment secrétaire général de PASTEF ne peut plus exercer les droits attachés à la qualité de membre euh, de d'un parti politique donc lu ñuy wax ni tukkeewul suñu li nga xam ne moom mooy suñu suñu suñuy mu ngi tukkee fi nga xam ne mooy au niveau du conseil constitutionnel ginnaaw ba si yenn mandataires yi daal di ñu daal di photo euh, li nga xam ne moom mooy document bi nga xam ne moo tax ñu convoqué leen pour rappeler euh, li nga xam ne mooy recours yi mandataires yi 21 candidats yi nga xam ne ñoo jàll si wàllu parrainage su nekkee concerné wu leen seen candidat mais pour ñu xam la moo tax lan la ñuy euh, réclamer si yi nga xam ne moom mooy dossier Diomaye fay wala ñeneen ñi nga xam ne tamit dinañ ko càmbar si kanam ku si mel ni Cheikh Tidiane jëy moom tamit bokk na si ñi nga xam ne euh, Amadou Ba moom euh, day daal di contester contre li nga xam ne moom mooy sa candidature. donc conseil constitutionnel di wax également conformément aux dispositions des articles 29 L29 30 ba li nga xam ne mooy 41 de la constitution. le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la présidence de la République, euh, arrête la liste des candidats et se tue sur les contestations relatives aux élections du président de la République, des députés à l'Assemblée nationale et des autres conseils et en proclame les résultats. donc euh, dossier Diomaye fay li ñu si mun a waxati rek mooy yéen ñi nga xam ne yéen ñuy déglu mooy que li nga xam ne moom mooy euh, xibaar bi tukkee fii nga xam ne au niveau du conseil constitutionnel Euh, luñ koy euh, les motifs du recours bokk na si li nga xam ne moom mooy appartenance à une entité politique dissoute production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel coalition irrégulièrement euh, constituée non appartenance au à la coalition qui l'a investi donc loolu moo nekk mbir yi nga xam ne Euh, moom moo tukkee fi euh, li ni mel fi nga xam ne mooy niveau du conseil constitutionnel ñeneen di laaj li nga xam ne mooy la suite de la page 1 ñu wax si li nga xam ne moom moo ñeel wala Bassirou Diomaye Faye donc lu ñu mën a résumer rek en grande partie si les motifs de Bassirou Diomaye Faye balaa ñëw Cheikh Tidiane Dièye mooy appartenance à une entité politique du Sud maanaam ñoom Amadou Ba ak ñu ni mel dañoo jàpp ne euh, Bassirou Diomaye Faye dafa appartenir à une entité politique du Sud mooy PASTEF production de fausses pièces devant le conseil wala coalition irrégulièrement constituée non appartenance au parti ou à la coalition qui l'a investi donc lii mooy les motifs euh, des recours euh, du recours euh, concernant la candidature de Bassirou Diomaye Diomaye Faye